waaw dama ne alhamdulilah rabbi ne tey li xew fii dafa méngoo ak li war a xew ci république ci démocratie dañu wax ne bu pencum ndaw réew mi liggéeyee ci session unique ordinaire bi am lu xew am lu soxal ñeel réew mi njiitu réew mi président de la République am na sañ-sañu sàkku ci assemblée pénc mi ñu dajawaat waxtaan bu ko sàkkoon nag boole te ne dafa jàmp dafay nekk de droit day nekk lu tënk péncum ndaw réew mi ndax xam nga fi askan wi yëpp falee téeméer ak juróom-benn fukk ak nangami député askan woowu moo fal benn nit kon bu ñu teg ci balance moom président ak euh, péncum ndaw réew mi dañuy rëng. day am équilibre loolu mooy li waral président bu sàkkoo ci turu askan wi moom kenn ñun député yi ñun mbooloo mu sàkku moom kenn daf ñuy yóbbu ci ñu jàmpal waxtaanee mbir réew mi bi ñu ñëwee daje nag ni muy amee mooy président assemblée day sàkku ñu seet ndax limu député yi teew war naa mën a may sañ-sañ pencum ndaw réew mi ñu dogal ci turu askan wi. bi ñu ko defee téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti député teew nañu kon quorum bi weesu nañ ko gannaaw loolu mu xamal ñu ne ñu dafa jot xibaar bu jógee ko bataaxal bu jógee ko ci njiitu réew mi gouvernement bi mu sàkku ci ñun député ñi càmbar ay mbir yu ñeel réew mi soxe ko ci diisoo muy dialogue national bi amoon ak loo xam ne nii war naa mën a jur ay coppite jëm ci ndey charte mi jëmit ci code électoral bi ndax nañ ko def bu ne dafay laaj nañ ko waxtaanee ñun ñooy dogal loi bi ma ko waxee pare mu ne nag comme ci liggéey bu jàmp lañ nekk maa ngi leen di yëgal ne suñu noppee fii ci plénière bi woote naa ndaje bureau bi bu sottee dañ cee toftal conférence des présidents pour tëral anam ak waxtu bi ñuy liggéeyee muy conférence des présidents suñ jógee ci loolu nag dañuy dem ci commission technique. ki fi toogal bi teew penc mi membre commission bi yëpp teew ñu càmbar loi par loi article par ak coppite bu ñu bëgg bi ñu bëree nag bi ñu dakkalee euh, plénière bi pour jublu ci loolu groupe bu ne dafa daje ak ay nitam man sama groupe bi ma bokk muy groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar gannaaw boo xamee ne daje woon nañ fan yee ci gannaaw ak njiitu réew mi suñu njiit coalition doon waxtaane lii ak lu ko ak lu ko undu feeñ na ne président déglu na député mi xam na it li yeneen député yeneen sensibilité di wax xam na yit li jóge ko ci réew mi mu ne bépp coow buy mën a indi jafe-jafeñ wala buy mën a naxal nëxal liggéey bi moom sàkku na ne nañ ko génne ci li mu bëgg a waxtaane loolu li muy tekki mooy président bi dafay déglu askan wi dafay déglu naatangoom yi nawlam yi muy liggéeyal te ku xool jéego yi mu séqi fan yi pour siggil Sénégal ormal kàddoom méngoo ak li ñu bëri bëggoon ñi far moom ak ñi farul moom nee na modification constitution bi liñ ci ñambaas di ko di ko dëkkal fu mu dëkkul tax na bu nee na comme moom 2 avril dootul nekk président mu ne kon day bàyyi assemblée bi lam ci bëggoon a dindi pour ñu mën a am sañ-sañu dakkal tas assemblée bi loolu moom da koy génne bu président bu bés lu ko soob ak lu ko yoon may ak charte mi mu jëfandikoo ko lii mooy li nga xam ne moom moo xew fii tey man nag ma di ci sant yàlla en tant que député di sant yàlla it en tant que socialiste ndax dafa am lu ràññee socialiste yi de tout le temps daan ngeen dégg ñu naan Jaurès nee na Jaurès nee na être socialiste c'est être républicain jusqu'au bout loolu moom mooy li am fii maa ngi sant la tontu nag. bi ñuy wax yëpp yaa ngi dégg ay xaj di baw xaj laa leen mën a parce que xaj rek mooy baw. nit bu respecté nawleem mu jàkkaarloog sénégalais yi à travers média yu mel ni comme yéen nga nekk fa di yooxu di tarara yi kooku wane na boobam nit ku ne nag bu ni mu waxee ni mu jëfee lay lay nekk man Abdoulaye Wilane lu ma war a wax lu ma war a def ak nu ma war a taxawee bu waxtu jotee maa koy seet tox ko waaye ñi nga xam ne dañuy dem di kàcc ci président wala ci ñu bëgg a nekk candidat wala ci samay njiitu parti ñoo bëgg a mel nii dañuy jiitu paaka ci mbaram du ma leen ko may parce que du ma ak ñoom du ma seen nawle